xel mi lu am bul xam ci sa xel ut a xam ci sa xel mi lu amut li xam nag li xam nag képp ku yàlla ubbi sa gëti xol xam nga li xam mooy lan wala mooy kan kon jéema la fexe ba sa xel xam kooku waaye jéema la fexe itam ba say gët di gis li xam waaye bul jéem a xool di ut a xool ci say gët loo xam ne amul te li xam li xam xam nañu ko ci am xam nañu ko lu amul xam nañu ko kon lu amul ku ci sanal sa bopp waaye jéem a la yittewoo loo xam ne loolu mooy li xam nga dundee dundin woowu nag mu ne alquran wax naa yow miy dundee loolu ne la huwa siraatul mustaqimu mooy li alquran wax naa lii mooy yoon mu jub bi fa tabiu toppal yoon mu jub bi wala anhu waaye fexeel ba bul wàcci yoon mu jub boobu bu ko bu jub bul déwiyee mukk jàppal yoon mu jub boobu taxfal anhu waaye bëreel ba bul sàggan ba ci yoon wu jub boobu qaala taala yàlla ma koy mi wax ne ne a anna haada siraati mustaqiman fattabiuhu lii mooy sama yoon wi jub kocc topp leen ko wala tattabiu subula waaye bu leen topp ñell yi mooy yoon yi demut dégg nga fatafarraqa bikum an sabilihi su ngeen toppee yoon yi demut fenn dana dox seen diggante ba ngeen wàcc yoon bi nga xam ne moo jëm fenn fa tabi yaa aqi tariqal xaq kon yow sama bokk toppal yoonu yàlla wala taadil anha ay na wajataha mun a bëreel ba bul wàcc yoonu dëgg dégg soo ko wàccee ana kon fan ngay amaatee yoonu dëgg ana foo koy gisaatee fa innaka tasiru xaafilan anillaahi ka annaka lam takun maahu waxtu woo xamee ne wàcc nga yoonu dëgg yoon wi jëm ci yàlla waxtu boo ko wàccee da ngay mujj doon koo xam ne da ngay sàggan sàggane dégg nga sa wàll ci yàlla ba mel ni yow nekkuloo koo xam ne yaa ngi ànd ak yàlla kon ku ne war ngaa ittewoo yëg ni nga ànd ak yàlla dégg nga ni yàlla yàlla ànd ak yow parce que yàlla ma wax ne wa huwa maakum na ma kuntum yàlla nga ànd ak yéen fu ngeen a nekk wa kullu daalika من عدم مراعاتك لظهوره وقفلتك عن حضوره mu ne lii waral lii yépp nag mooy ñàkk a sàmm wanteeg feeñ gi feeñam gi jim feeñ moom yàlla ak sàggan koo xam ne sàggan na nga ko teew gi nga xam ne ni ngi ko teew demul fenn amul fenn fu yàlla ab sant taarifu bi mu jëradil watulkilu fii ma fahara anka min al jalaali mu ne su boobaa day soo sàmm wantuwut ak feeñam gin feeñ su boobaa doo ko xam dégg bul xam yàlla bokk ci taaram bi bul ko xam ci taaram bi kot daal di weddi yàlla nag dégg nga ci feeñuwaayu jalaal di saara ay ta masharal jamaali laa tattawar di masharal jalaali loolu la bàyyi wax ci rawu dana dégg su fekkee nag gis nga feeñuwaayu jamaal mi tajaliyaatu jamaal mu ne bul bew waaye gërëmali na gërëmit masharu jalaal kon nag ba ba bul yëg ne yàlla moom dafay feeñu rek ci jamaal waaye su jalaal ñëwee dégg nga nga dootoo nangoo xam ne yàlla mooy ka feeñu foofu nangu li ñaar yëpp bu ci nekk rek connaître ko bu ci nekk nga dund ca xaal bi nga xam ne moom nga war a dundee ak loolu su dee jamaal la ban ban ban dund nga war a dund ci ci feeñuwaay booba dundal foofa dund ak sant yàlla jamaal dañ fi sant yàlla waaye jalaal nan nga ciy dundee mooy da gërëm ànd ak moom loolu la jalaal la aywa li ma la ni jalaal bal kun fi saa'iri al ahwaal wa fi l addaati mu ne na nga nekk di koo xam ne da ngay sax ci booreem xaal yi melokaan yépp ba deel ba benn bu ci nekk na nga góor góorlu ba nga garde wala bi bu baax bañ dara tarxiis loola dégg nga feeñu waay yépp na nga góor góorlu nga nga nga nga man koo xam comprendre mbooleem feeñu waay yi te xam ne dara feeñul sa lu may jalaalullaahi wala jamaalullaahi taarab yàlla bi wala màggam gi rek moo fa dégg na nga góorgóorlu itam nga sàmm wante ak feeñuwaayu yàlla yooyu ci contraire bi fala fil basti wa tunkiru fil xab bul xam yàlla ci bastu bu yomb-yomb ñëwee bu xéewal yi nga xam yàlla waaye waxtu bu jalaal ñëwee rek xab du ñëw na jafe-jafe yi ñëw na nga wedd yàlla déedéet reconnaître lépp loolu moo di ak nag aw taarifu fil ataayi wa tunkiru fil man'i wala nga ne da xam yàlla ci xam weddi ko ci ñàkk xam ko ci su la joxee weddi ko ci soo xamee na laa jox du noonu aw taarifu fil ilmi wa nga xam yàlla ci xam-xam weddi ko ci réer aw taarifu fil yusri wa tajalu fil usri wala bu yombee nga xam ko bu jotee dégg nga réere ko du noonu fa haasihi maarifatu taswiqi la maarifata tahqiq taswiq lësul kon nag mu ne kuy dundee nii ci xam yàlla kon xam yàlla goo xam ne da ngay mu ngoog waaye du xam yàlla ak war du dëgg-dëgg xam yàlla wal habibu habibun ala kulli haal soppe daal moom soppe rek lay doon ci xaal bu mu mën a ñëwee xaal bu mu mën a ñëwee rek nangul na soppe la su ma sama soppe dafa lu ma neex soppe la su boobaa xarit la waxtu soppe bi moo topp waxtu soppe bi dafee loo xam ne neexuma non non dootul soppe noonu la ah yaakaar naa ñu bëri noonu la ñuy dund ah amul kenn koo xam ne walla boog ñu bëree bëri nanguluñ seen soppe def benn njuumte mën naa am sax du njuumte waaye dañoo jàpp ne soppe moom na lay defal bànneex rek warulaa def lu la nax du noonu waxtu la soppe defalee bànneex jamaalo ko waaye waxtu wala soppee dafa lee loo xam ne itam lu diis la ci yow lu diis la ci yow mais ba tey tuddee ko soppe bu ko tuddee noonu ah kon loolu mooy tegtale dëgg-dëgg mën a dund ci yàlla dund goo xam ne mooy dëggal na yow mii xam nga yàlla waaye jamaal bi rek laay demee déedéet du noonu wa qiila inna jamaatan daxalat ala shugli wa huwa bil maristan maridin fa qaal man antum qaaloo ahbaabu fa aqasa alxajara wa saara yabdihum fa farra jamiuhum fa qaala lahum kasabtum fa inna da'waakum law kuntum min wulaa'i maa farartum min balaa'i mu ne ma andi la benn lépp nee na dafa am benn mbooloo ñëw seet ci imaamu Sufli nit yàlla la woon fekk boobu imaamu Sufli mi ngi feebar ñu ne dañ dem ko bu ñëwee ak si imaamu Sufli daal dina leen daal dina ñan la dina ko ñun la sa soppe yi ñoo ñëw seet si la fekk ay xeer rek ñu dee nag rek mu jël xeer yi rek di bandaar fur fur fur daa yëpp daal di daw tasaaroo mu ne leen yéen a kàcc yéen ngeen naa samay soppe ngeen ci ngeen doon samay soppe ah da ngeen daw sama balaa su fitna di bàyyi ko ci man di ñëw ci yéen da ngeen ko daw man kay du leen samay soppe lu koy ngeen toog ngeen dégg ma leen sant ngeen di kàcc yaa ngi dégg loolu ni nit yàlla la bi mawlaaka isa akramaka wa tajhaluhu ida taradaka kon nag yow sama soppe xamal ne misaalam soppe ak soppe mooy lii ma la wax bul xam yow sama mbokk sa borom su la teralee ah nga réere ko waxtu woo xamee ne dégg nga dàq na la amal mabtalaahu fa فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهل وما إسامت الله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني وما إسامت الله da bu njëkk bi ban la ah amal insaan fa akramahu wa naamahu fa yaqulu rabbi akramani wa ma yusammatullah fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanani kallaa du mu ne alquran nee na nit su ko yàlla teralee jox ko xéewal ma ne ma ngay sant yàlla rek ah waaye yaay sama borom teral na ma alhamdulilah waaye nag bu la nattoo bu nattoo nit rek mu ne sama borom toroxal na ma gàcceel na ma doyadal na ma nangam nangam ah man lu ma def yàlla mais ni yow man ngaa def yàlla lu ko yëgal nit ñi du noonu mazhar bu ci nekk rek mazharu boppam la boo xam ne force nga mën a déggu ñaari mazhar yooyu door a mën a nekk kaamil ñaari feeñuwaay yooyu muy jamaal bànneex force nga mën a dund feeñuwaay boobu bu yàlla andee wér andee xéewal andi yomb-yomb andi lépp loo xam ne moom la moom nga bëgg santal yàlla mooy tax loola yàlla indi des fa waaye mooy tax loola yàlla indi mën a dolleeku la in shakartum la azidannakum fi ngeen santee rek doon dégg waaye it waxtu woo xamee ne natt ñëw na su boobaa lan moo war su natt ñëwee gërëmal yàlla ci natt boobu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 mbaa mën a too leen bekkoo ñëw xiif dara amatul amoon nga ñàkk ñëw na mu ne waaye sama jaam yi nga xam ne bu musiba moom mu egsee ci ñoom ñu ne ñun day ci yàlla lañ jógee ci yàlla rek lañuy ñuy del gëm ne yàlla moo leen joxoon yàlla moo jëf dégg xataa dé deeleen ak lu mën a doj ci natt yi bu yëgsee rek yow dellool sa bopp ci yàlla comme ni nga yëgee ne mosoo dañ di nekk ci yàlla bul fa gis leneen lu dul yàlla bul fa yëg leneen lu dul yàlla yàlla na ne ñi nga xam ne ñoom noonu lañuy mooy seen yëg-yëg nangoo nekk ay jaam yàlla toroxlul yàlla xammatu ñeexal yàlla ñi nga xam ne loolu mooy seen taxawaay ñooñu ñooy ñi nga xam ne yërmande yàlla day wàcc rek ci ñoom ak ay may ay kado day soufflé di wàcc ci ñoom te yàlla nag nag ne na sama jaan yi nga xam ne jamono bu nekk ñu ngi naan ihdina siratal mustaqim fu ñu mën a toll naan ihdina siratal mustaqim sama jaam yaa am hidaayatu ñooy ñoom ñu am jubam yàlla yàlla ci yàlla kon lii mooy lenn la ci li nga xam ne dars bi andi na ko kalla innama huwa mawlaaka ala kulli haalin mu ne yow sama mbokk bu la yàlla teralee nga ne da xam yàlla bu la yàlla nga woote yi xam nga yàlla bu la yàlla dàqee dindi na teraanga ja wala ut nga ko ba sonn amuloo ko nga ne doo xam yàlla wala yàlla doyadal na la mu ne déedéet bul mel noonu seeni waay yooyu yëpp huwa mawlaaka ala kulli xaal wala taxsur lahu yaa aki wasfan melokaani sa borom bu ñu ne lii rek la du lii kenn xamul di melokaan yi sa wax fasu fi saairil awqaati wala taqul ataani mun basijan fasataraahu mun saijan aw ataani mun tariban fasataraahu mun tadiyan mun tadiban wala taqul innahu manaani وذكرك فسيكرمك yàlla jox na ma jamaal man cee delluwaat kon danaa ko gis mu nekk di koo xam ne teral na ma wala nga gis ne yàlla ah, joxut ma waaye kon danaa ko gis ni koo xam ne teddadil na ma mu ne wax loolu nangu la nekk jaam yàlla ci mbooleem xaal yi xaalab jamaal ak xaalu jalaal yëpp nangu cee nekk rek jaamab yàlla xaal bu ñëw la la ci yàlla sant nga joxe ko borom insaanu kaamil ma ngi wax ne kon nañu am foofu loolu darsu boo xam ne ba tey ñu ngi nga xam moom lañ jël ci mu kàllaf gis nga yàlla bahrun la saahila géej amul tefes nga ne bañ déparé ci ba léegi ñu ak ñooñ yàlla te ba tey ci sara jeexagut des na ba tey kon nga xamee ci ne géej la bu amul tefes yàlla géej bu amul tefes la ñay dund ci yàlla ñu ngi puus ci géej goo xam ne amul tefes kuy wax nag ci puus ci géej gu amul tefes yaakaar naa da ngay dem ba sax <coughs> sonn rek wala temps jeex ñu dugg ci beneen xaal xaal biy jeex ñu dugg ci beneen xaal waaye du jeex moom kon yem foofu saraa bi jeexul waaye wax ñu lim ni ma yoon kenn toog ne man day damaa bëgg dox say yéen a ngi ci détails yi ñuy joxe pour ngeen gën a xàmmee yi lépp di say wala ko te wax naa leen na géej lu amul tafis kon tarbiya naa ba pare amul sayru naa ba pare amul sa diiram dund bi nga yëgee nag kiiraay yi dox sa diggante ak yàlla dañ na sa ngir dund sayru la ba ilaa macha allah kon bu ko kenn utal frontière wala lii la dund da nga dégg. am yàlla boole ñu bokk ñu bokk ci ulul albab